waaye mën ngaa waat ci yàlla ne Muhammad yàllaa ko yónni te ci moom lañ ñuy laaj moo tax ñu waatal seen bopp ne tallaahi giñ na ci yàlla giñ nañ ci yàlla ne in kunna la fi dalalin mubin ñun ndeke dañoo réeroon réer bu méttee méttee métt waaw lan moo waral ngeen réer ak bi ngeen réeree nu ngeen defal ne iznu sawwikum ñun dem nañ ba di leen tollaleeg bi rabbil alamin borom bi def mbaa amut tey du ngeen dégg diwa bind jaam ñi ah ah diwa bind jaam ñi moom ku ko wax yowmal qiyaam di nga wax ni ibnu safikum bi rabbil alamin ndax boo nee diwa bind jaam ñi mooy yaa ngi koy tollaleeg yàlla boo nee diwa yor wërsëg yi koo ko tollaleen yàlla bu du woon diw du ngeen am dara koo ko tollaleen yàlla kii moom taxaw carrément ni diw yàlla la kooku moom moo gën a garaaw ndax kooku moom dafa engagé wu ne Ibrahim yàlla la Mademba yàlla la comme day dof dof lu am ku ko gën a dof nag ñëw ne ko comme yow da nga ne diw yàlla la man sama waay moo bind yàlla fa Sénégal da ngeen dégg loolu diwa bind yàlla wala amul waaw ki ne diwa bind yàlla kooku jéggi na yàlla ndax li gën a grave dafa tuumaal yàlla fenal yàlla yàlla amul soxna amul doom amaluñ ko doom amul sët waaw nu muy amee ndey baay lam walla walam yuulat yow àgg nga ci mbonuk diwa bindiyaan te kat boo ko waxee dara garaaw mais xam na kii wax lu garaaw ki ñëw ne la da ngay fen du dëgg non dafa weddi mag ñi waaw dafa weddi nangam loolu lañ lay wax ak it ñoom du ñu mën a jàkkaarloog yow ci ay lay waaye dañ lay tuumaal jaxase la motax lañuy fenn diko fen wax dañuy taxawat saxal ko tallahi in kunna la fi dalalin mubin ndeke ñun reeron oh fa ñuy reconnaître ni dañu reer day fekk yi fi ya dem na bala ñuy dakk jaan fekk jaan dem na ba dugg xam ñu top ci watetu jaan di door top ci watetu jaan di door in kunna la fi dalalin mubin ñun day dañu reer reer bu metti metti Iznu dem nañ ba di leen tollaleeg bi rabbil alamin borom jamni ñi ki bind mbinde fi gàddu sen wërsëg gàddu sen xewal bind len mom len koku ngeen diko ko utali ndend waye nak gis nga bañu waxe ni ñun dañ len dem tolale borom jamni luñ ci tek wa ma adallana illa al mujrimun kenn reer réer wuñu lu dul say say yi joxoñ leen di baaraam ña doon wu ñu leen di rus ak kenn do tu leen rus safara léegi yow yow ndeke yow ñu bandi nga ah yow ndeke say say nga woon yow yow vrai bandi nga yow fen kat bi nga doon sëriñ bi naan la maa tay lo ci mom ma tay ya ma papal pappandu daf daflu iblis tok di setan mag ci bi wax bu ñu xuloo ba caabu ñëpp daje ne kii principal problème bi iblis la iblis ne leen fecci xam bu leen ma fonto maa ana bi masrixikum munumaa rëcc munu leen a rëcc yéen a dof dof lu woon ma jaar seen kaw point nekk fa nag di négociation moom foofu moom day fekk waliyaadu billah mbir yi jeex na wa ma adallana illa al mujrimun kenn réeraluñu ku dul saay-saay yii wootekatu jëme ci jahannam wootekat jëme ci caaxaan wootekat jëme ci li yàlla bëggul ñooñu ñoom ñooy almujrimuun ñooy saay-saay yi léegi nag ñoo ngay ñaan fama lana min shafiin moloog ñun ba duñu am ku ñu ràmb waaw ku leen di ràmb xanaa xamoo ñi ñuy ràmm yowmal qiyaam mooy ñi yàlla nangul ñi di ràmm yàlla nangul leen manam ki ramu yàlla da koy gërëm ki ñuy ramu yàlla gërëm comme yéen bokku len ci ñi yàlla gërëm ngeen dem safara famaa na min shafin ñun de ndeysaan amuñu ku ñu ramu wala sadiqin amuñu kharib hamim bu ñu jégué lol te yërëm nu mbokk ut len sadiqun hamim xam ngeen bi sadiqun hamim moy ki lay wax deug te yàlla tax ki lay wax deug ta yàlla tax outu ca ben intérêt mbokk jullil baal caaxaan mbokk jaamul yàlla bu fa nek non waro ma wax ci bir nit ñi nga wara bàyyi ba ñu wéet déedéet jam lolu ki lay ragalal yàlla sa tar la bëgg kooku ngay soxla yowma qiyam al axillaa yawma idin ba'dahu li ba'din aduwun illa boy ut serigne utal kulay wax deug tay def deug te bëgg deug waye ki ngay top gisoko muy julli gisoko muy jaamu yalla nga ni moo lay yobbu wor na ngeen and ci jakka ji na ngeen and ci juma ji na ngeen and ci jaamu yalla na nek maître nageur serigne day nek maître nageur xam ngeen maître nageur ni mu mel jarul expliquer waxna ko fi mus ngeen a fuy jangali fi fii defal na ko defal ni defal ni est ce que da nga nangoo fay ah <laughs> maître nageur day kottu sa loxo di féey benn loxo naan na féeyal benn loxo boo naree nag mu xëcc la loolu mooy mooy kilifa mooy ki lay waar di lay yedd di la delloo ci yàlla mais ki toog ne sugg rek ne nii nga naan ko yaay waajam la kooku kooku du maître nageur da lay nax bañal su julli jotee na nga ko fekk ca jàkka ja su jaamu yàlla jotee na nga ko fa fekk su aj màkka jotee na nga ko fa fekk na lay waxal yonent bi di la waxal yàlla bu mu la waxal baayam ñépp am baay bu mu la waxal maamam ñépp am maam maamam defu fi lu kenn defut te nag dëgg ji moom mooy ñun ñépp ay jaamu yàlla lañ ci baax ak bon jaamu yàlla la kon nañu ànd jaamu yàlla nit mënu laa yéem lu dul ci jaamu yàlla waaye moo naawoon fii ak moo duggoon te pax maag moo jaaroon fee yooyu ay détails la yoo xamante ne amul benn njëriñ kon sëriñ si nekk leen ay maître nageur loolooy dëgg bu leen jël seen sant yi di ko naxee nit ñi bu leen jël seen sant yi di dox digganteeg yàlla dem nañu diina ji ba yàlla joxe woon libéré ko gars yi dañ koo kott dañ koo kott de hmm, Sénégal yàlla julli ci yonente bi ku ciy laaj ah waaye balaa ngaa def salaatu bi il faut ñu jox la ndigal ndigal ci kan la jógee ko moom da koo moom bala ciy jox ndigal jaamu yàlla ku la ciy jox ndigal balaa ngaa julli xaaral ma jox la ndigal ku la ko jox yàlla jox la ko nga seetaan keneen ñëw ñëw ne la déedéet man ci sa bopp maa lay jox ndigal loolu triant gënu koo mag bu nangu bañal diina ji lépp yonent bi da koo joxe ba mu jeex tak li ko yàlla sant te mu taxaw ni yàlla seedeel matal naa yàlla ne ko matal nga ñu ne ko matal nga kon bu kenn jëli ci kenn ndigal ndigalal jaamu yàlla du jóge ci kenn kenn bu ci xaar ndigalam lélé nga dégg nit naan la ah ndax jox nga ma ci ndigal loolu Sénégal nga koy dégg de jàmm yàlla kenn du ci jox kenn ndigal loolu moo tax bi ñu ne wa ma adallana illa al mujrimun say say yi ñoo ñu réeral fa ma lana min shafiin tay ji day amuñu ku ñuy ramm wala sadiqin hamim amuñu xarit bu ñu yërëm te baax wallahi jaxle lañ علي بن ابي طالب ne aleykum bil ixwaan fa innahu uddatu dunia wa uddatu alaaxira ay yéen jullit ñi ut leen ay xarit ay frère frère mooy ndimbalam àdduna ndimbalam alaaxira ki nga xam ne fu ngeen toogee su déggee nodd rek jóg na mbaa mu ne ay cee leen ñu jóg jullit kooku mooy xarit ki nga xam ne du nangu nga biddanti boo biddantee mu daw yee la jullit day baax waaye jullit ñu bari léegi jaamu yàlla dañ ko def concours di nga tëdd ak nit ngeen fanaan ngeen tëdd mu yeewu yàlla may ko sànq muy naafila bala mbokk baaxoo déedéet ku baax du def loolu suñu àndee tëdd yàlla may la sànq nga yeewu ne ma dim ah, doo doo jéem a jóg nga naafila su fekkee sonn na nelaw nga bàyyi ko xam ne sa devoir def nga ko waaye nga làqatu fay làmp yi jullee jullee julli ba ñu nodd nga delloo buntu bi naaw naafiqu nga baaxoo ku bon nga ku bonee def loolu nañ ko moytu te ñun daf ñuy dal lu bari nit day làqu di julli di julli di julli ba fajar jot ñu nodd mu rocc génn bàyyi la ngay mais kii yowmal xiyam booy dem safara yoonam du ci nekk non vraiment mais mais mais mbaax mooy kay mbokk doo jëm nga def ay rakka wala boo ko yeewal ba ñu naan asaar xay mu ne nga yee ko mu jóg mu julli mais nga rocc ku dem man de ku moko def ma mere la ba faw ndax xamna ni yene wu ma jam ñu ànd bokku nit ma biddanti yewom wallahi bu mako xame dana la baax ndax xamna ni yene wu ma jam te do sadiqul hamim yow do xarit bu bax xarit bu bax mo lay kon lolu njumte la ci mbokk yi day am lu bari njumte la ku mu nekkon ci yow genné ko njumte la xana xamo ki nga yee mu jóg jaamu yàlla am nga lu tollal ak li mu am ndax ya ko sobe kon nonu ngay def bokk moy wala sadiqul hamim aw ma fi takharit bo xamanteni daf may yiram te dimbalañu xam nga luñ koy teg falaw an lana karra bu nu amoon sens ba retourner wat une deuxième fois delu adina eh way falaw an lana karra suñu amoon sens ba wat kon day fanakuuna danañ nekk minal muminin ci way gemi wallahi mbok yàlla bu defoon ku de 3 jours ñu dekkal la ngi del si waat àdduna ñépp nii dañuy def ñépp dafa di nag fi ñuy yeewoo foofu mooy moo moo grave Ali ibn Abi Talib nee na yéen a ngi nelaw de yéen a ngi biddanti <laughs> ku dee yeewu boo dee yeewu xam nga ñun dañ naan nelaw na dañoo war wax ni yeewu na ki dee yeewu na bu duggee ci bàmmee rek xam risaala bi foofu ngay yeewu kon nag foofu mbokk góorgóorlul kon nag ñu ne falaw anna lana karra su na amoon beneen chance u delluwaat ci àdduna kon day fata saasa nakuuna danañ bokk minal muminin ca way gëm ya nga xam ni danañ jëfee jaamu yàlla borom bi ne inna fii daalik aji nekk la ci yeewu googu ñu nara a yeewu yowmal qiyaam la aaya ak keemaan waaye wa maa kaana nekkul aksaruhum lépp ci ñoom muminin di way gëm mbokk ki lay yedd fii jàppee ko xarit ki lay waar bu ko jàppee ko soxor de bu ko jàppee ko mais ñun malheureusement diw dafa soxor diw safara nag daa mel ni mu ki fekk wallahi bis na ñëw nga ni diw mii moo baaxoon ndax moo lay wax dëgg ki lay wax dëgg di la indi jàppal ni kooku mooy sa xarit di nga sëriñ bee nga fa teg mu mel ni suweer du sa xarit de bu doon sa xarit daf lay waar daf lay yedd da lay delloo si ci yàlla waye ki lay yóbbu ci papa ak maamam koku mom mo baxul ki ngeen nan baxul koku mo bax ndax koku mo la neen ragal len yàlla delu len ci yàlla motax borom bi ne inna fi zalika la aya aji nek la deug deug ay keman ci jëf joju day nak wa maa kaana nekkul li ëpp ci ñoom muminin di way gëm wa inna rabbaka nak sa borom la huwa al azizur rahim mom moy aji tedd gi nga xamni moom mooy aji yërëm azizur rahim borom bi ku tedd la waaye ku am yërmëne la ku mata yërëm la mbokk yi mu bàyyi loolu ñëw ci nitu yonent yàlla nuux ku weddi benn yonent weddi nga ñëpp moo borom bi ne ñu kazabat qawmu nuuxinil mursalin niti nuux weddi nañu yonent yépp niti nuux yenn yonent lañu weddi ku ko xam Idris ak njabootam ndax nuux ci mursaluuna yi moom moo ci jiitu ginnaaw Idris siisa ak ñu mel noonu waaye comme boo weddee benn yonent weddi nga ñépp moo tax kazabat aadunil mursalin ngay dégg kazabat xawmu nuux kazabat nangam nangam parce que ku weddi kii weddi ke ndax risaala benn la kenn amut lu keneen amul yonent yëpp ñoo bokk benn mission bu leen yàlla yónni